les élus man je trouve que injustice la injustice la parce que dafa yomb. injustice la parce que yéen amu leen. le nombre d'élus non du question nombre d'élus sa à dire que le problème ku mu mënti doon loolu dafa yomb xam nga tey boo nee pourquoi pourquoi ñu tànn treize. loolu indi problème bu dialogue bi ñenn ñu ne demu demuma ca loolu aussi si lu bokk la parce que tey boo ne dialogue bi a priori manière bi ñu ko doon bëgg a defee yow xam nga ne que xëy na dafa am ay problèmes yu ñu bëgg a léegi yow boo ko xamee am na yoo xam ne doo ci duggu xam nga ñun en fait nekkuñu parti boo xam ne day nekk ci ay waxu dil wala ay waxu lijjanti lii wala lee nekkuñu si logique yooyu donc di ñuy analyser bu ñu analyser lu ñu xalaat ñu ne kat il vaut mieux tey tey ci wala ñu xam ni ñuy def parce que tey aujourd'hui bu ñu demee si mbir moomu tey bu ñu nee treize députés xëy na am na ñoo xam ne lañu bëgg a jàppale parce que xëy na ñoom boo nee treize députés am nañu treize yoo xam ne tey mën na mën na ànd pourquoi defuñu ko quatorze pourquoi defuñu ko loolu yëpp mu ngi si biir et tey nit ki boo xamee ne yow am nga tant de député ñu jël ne la euh, dix député la ñuy la ñuy parrainé fekk yow am nga vingt mais ban effort nga def pour wane na lu mu mënti doon et pare naa si boppam peut-être lu ñu mënoon def si sens bi mooy am na quelques partis yoo xam ne waruñu woon dem parrainage. absolument du tout. parce que tey aujourd'hui danger danger bi am ba ma jëlee parti bu mel ni réew mi. Idrissa Seck quand même était deuxième. oui pas. donc ku mel noonu tamit nga jël deuxième. Mhm. yow ñu dellu si beneen élection ñu ne la yow. da ngay bokkatuloo parce que daanu nga xam premier tour bi amoon na problème. il suffisait mu amoon ko deuxième tour. automatiquement ñu ne daanu na. doo dem mhm. mais loolu mënul logique. c'est ça aussi qu'il faut regarder. loolu que tey mënoo jël koo xam ne. kenn xamu ko fenn. mu mhm. xëy suba jógee jógee nekk ci ay eh, affaire boppam. élection jot rek mu xëy suba ne bon léegi damay dem nekk président de la république nekk candidat ñu def tirage au nga jël premier. Mhm. jékki-jékki ñu ne jàll nga. Mhm. gis parti bu structuré jël deuxième si mhm. élection yu passé ñu dellu si. vraiment nga dekk dernier par exemple. xel mënu ko xel mënu ko nangu. mais loolu et l'autre chose aussi mënoon nañ ko def ah doyen. yow laa interpellé loolu mënoon nañ ko def mooy. booy dem parrainage nga ni option bii laay jël. loolu si góobee voilà au départ. Ah, au départ ah doyen Kaffrine bi ñuy dund nii yëpp ah. sëmbaxloo bi ñuy dund nii yëpp problème yi ñuy dund yëpp. loolu mën na ko indi ba ngay jël fiche de parrainage mënoon nga coché ni lii option bii laa jël. foofu laa doon wax terminé d' abord option bi nga wax ko dès le début. bi ngay jël fiche bi la jox sax nga. moom laa la moom laa bi nga bëgg lañ lay jox. moom laa lay wax deuxième chose aussi. ñi nga xam ne ay candidature man entre guillemets farfelu lañ ko mën a tuddee ñoo xam ne dañuy jëli ay fiche pour le plaisir jëli ko mëtaluñu benn pièce. bala ngay jëli bala ngay jëli fiche mënoon nga mënoon nga fay mënoon nga fay caisse de dépôt et consignation. voilà d'abord di nga nañu nañu imposer paiement euh, pour parce que en fait da ngay da ngay da ngay récupérer benn dossier boo xam da ngay dem traité appel d'offre. Mhm. donc loolu da war a fay pour am ko. deuxième chose. aussi li nga xam ne non da nga war a joxe sa nga xam ne seeni dossier mëtul ñooñu waruñu leen sax boole ñuy tirage au sort. Mhm. donc ñooñu di leen waroon teg de côté. Mhm. parce que am na si ñoo xam ne jarul ñu ñuy dem si tirage au sort. léegi nag à ce moment là nga doog a def tirage au sort avec euh, un nombre beaucoup plus restreint. Mhm. saytu bi gën a dem aujourd'hui 21 la ñu nekk te ñu donc léegi bu ñu demaatee ñu ngi saytu yeneen pièces yi. waaye yéen yéen ñi les acteurs politiques ah. xam loolu lépp tamit lan moo tax gérer wu leen ko. en amont bala bala bala ñoo yegg si ba fii ngeen ñuy tamit tànkal xamoon nañ ko nangam nangam doyen tamit ah?